sëñ sëñ Mamor ak euh, ñi nga xamante ni ak ñi boo àndal yëpp yegg si nañu euh, ci li nga xamante ni moom moo di euh, dëkk bi waaye itam ki nga xamante ni moom moo di représentant bu bi nga xamante ni moom fi teewal fii ci Amérique di El Hadj Ndangane Ndao ah, moom tamit mi ngi fi ànd mi nga xamante ni moom la Sénégalais yi moom le président de la République son excellence monsieur Macky Sall tam yabal ñoom tamit yegg nañu ànd ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi fii nga xamante ni moom moo di ci Bamba Day édition 2023 bi donc mu nekk euh, lu nga xamante ni loo am solo la mais santaat ci yàlla ndax itam bu la yàlla mayee loo xamante ni ko def euh, defaat ko loolu sant yàlla la donc ñu ciy sant yàlla bu baax a euh, di ci wax alhamdulilah donc di wax rek ne ci kanam tuuti incha allah bi lépp lu jëm ci wàllu waxtaan bi daañu lépp ko ànd ak yéen waaye lu jëm ci tam wàllu programme bi nga xamante ni moo ndax xam ngeen ne tey dafa nekk li nga xamante moom moo di ajuma ajuma nag a a nag ci li nga xamante ni euh, moom moo di euh, waxtaan yi ak conférence yi bu 16h wala jàpp 17h daañu dem euh, fële nga xamante ni moom moo di ca Nations Unies ngir amal ay li nga xamante ni moom moo di ay waxtaan waxtaan yooyu nag daañu leen ko wan en ci seen télévision Mafatou Bichri TV la télévision islamique au service de Khadim Rasoul gis ngeen nag organisation yi soxna yi ñi ngi fi góor ñi tamit ñi ngi noonu waaye itam Baye Fall ñi ngi ci ginnaaw di def liggéey bu am solo xanaa di Euh, l'islam amat na ndam te saa suñ ko amee itam dañ ci bég di ci kontaan di ci sant yàlla bu baax ginnaaw bu ñu yàlla mayee fekke ak tal ñu mën a fekke li nga xamante ni moom moo di bis bu am solo bi nga xamante ni moom la ñuy euh, def euh, fii ci États-Unis d'Amérique en direct ci seen télévision Mafatou Bichri TV la télévision islamique au service de Khadim Rasoul donc loolu nag ci kanam tuuti bu soobee yàlla dara du leen umb ci li nga xamante ni moom moo di bi nga xamante ni ñu leen ci ànd ak yéen ndax xam ngeen ne lu jiitu fii ci New York ñu ngi woon fële ca Baltimore nekki noonu itam ci Washington uh, DC fekk fa tam ay magi murid yu am am solo waaye xam ngeen ne itam jaar nañu fële nga xamante ni moom moo di Atlanta waaye itam jaar nañ fële nga xamante ni moom moo di Detroit Michigan ñu ngi fii ci uh, New York waaye xam ngeen ne uh, tey ca kanam tuuti daañu àgg fa nga xamante ni moom moo di Nations Unies am na ay thème yu nga xamante ni yu bëree bëri yu ñuy waajal thème yooyu nag bokk na ci yu du ñu mën a fas yéene yaatal liggéeyu Sëñ Tuubaa bi ci diaspora xam ngeen ne fii ñu nekk itam ndawi Sëriñ Tuubaa itam ñi ngi fi ndawi Sëriñ Tuubaa bu ñu leen ko waxee mooy ñooñu nga xamante dañoo rek fas seen euh, ndigg di liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba fii ci diaspora bi boo demee ci Italie baa nga dem ci Espagne baa nga dem ci France dara leen ca euh, fekk donc loolu euh, nekk lu nga xamante ni lu am am solo donc ci kanam tuuti rek bu soobee yàlla programme bi dina commencé ñu ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xamante ni moom lañ fi fa yéenee def ak kilifa yi nga xamante ni ñoom rek ñoom ñi ngi fi ndiki tam ñi ngi euh, ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy euh, euh, kilifa yi ñoom ñëpp ñëw nañ gis fi tam aussi daaw de sa da baax bu ñu ko waxee rek wax dëgg yàlla wax ñi xamante ni moom mooy waa kër El Hadji Malick Sy niki noonu itam imam Khadim bu maa ngi koy seen ca biir sedd Sène Dramé sànq lim naa ko ak délégation bi nga xamante ni moom la sëñ Mamour àndal fii ci New York City ñu fas yéene ànd dundal li nga xamante ni moom moo di islam donc alhamdulilah sant yàlla donc Cheikh Anta tam seen naa ko foofu ca ca bi euh, lool tamit nekk na lu nga xamante ni euh, lu am am solo la di ci sant yàlla di ñaan yàlla euh, may ñu rek ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin donc Tounkara tam euh, mi ngi fi su fekkente ni euh, bëgg nga ci rek euh, sànni ci ay ay kàddu jëm ci li nga xamante ni moom moo di ci programme bis bi ndax xam ngeen di toujours li ñuy tàmbalee rek moom moo di li nga xamante ni moom moo di marche bi bu ñu defee suñu marche nag ba pare ci la ñuy def li nga xamante ni moom moo di suñu programme jëmale ko ci wàllu podium bi su podium bi jàllee itam ñu di def li nga xamante ni moom moo di Nations Unies bi lépp rek ñu ànd ko ak ñi nga xamante mooy équipe complet sëñ Madiama sëñ Fallou sëñ Jibilaay direct de New York ak suñu ay euh, euh, euh, naataango yi nga xamante ni ñoom la ñu ñoom la ñu ñoom la ñu àndal donc loolu nekk na lu nga xamante ni lu am am solo la maa ngi tam tàllal loxo Cheikh Anta su fekkente ni tam mën nañoo yegg si waaw donc loolu am na solo. donc voilà donc mi noonu donc soxna yi. Euh, boo xoolee ci côté gauche ñi ngi ñëw ndànk-ndànk loolu nag sant ci yàlla d'abord euh, di ci ñaan yàlla rek lépp rek ñu ñu ñu yeggale ko ci ci ci ci ci jàmm ak salaam waaw ngeen deux minutes kontaan nañ bu baax a baax ñi ngi ci bis bu am solo muy bisu Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ah en tout cas kontaan nañu comme toujours ni nga koy defee gis nañu ne tey moom vraiment sénégalais fépp fu mu mën a nekk ci àdduna bi ñëw na représenté fi sëñ Touba lii moo lay won doole sëñ Touba à travers le monde ndax tey li fi nekk ci doomu aadama leneen mënu koo dajale lu dul sëñ Touba vraiment ñuy kontaan trop ci seen bi sedd macha allah bu ma waxee toujours ñu ba léegi nag at bu ne sëñ Mame Mor boo ko gisee da ngay defee ne tey la a te ñu ngi sant yàlla baax a baax a baax a baax ci taxawaay bi. macha allah vraiment kontaan nañ. <laughs> aja euh, Cheikh Cheikh Serigne Cheikh Mbacké ba léegi ñu ngi en direct ci télévision ma fato Bichri TV def nañu marche bi ba yegg si fii nga xamante ni moom moo di ci podium bi podium bi nag li ñu koy waxee ne dafa am mandarga ndax yàlla da daan dogal bu ñu defee marche bu yegg si fii sëñ bi ci la ci lay fas yéene jàkkaarloog askan wi waaye itam liy mel ne wàllu mika nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ak FONCAB di bi ñoom ñëpp dañ rek ànd euh, wax sëñ bi fi liggéey bi toll fa lañ ko fas yemal donc loolu dafa am solo def dem te amul lu ñu yokk wala amul lu ñu waañ jërëjëf eh, sëñ Bathie eh, di santaal yàlla bu baax rek di sant nag équipe bu Bichri TV ndax wax dëgg yàlla eh, gis nañu taxawaay bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci liggéey Serigne Touba bi Serigne Touba rek moo la ñor kon di ziar baax si yoo Madiama Mbaye di ko ñaan su borom sàmm ko ak ñuy ànd liggéey yow sëñ Bathie Massamba Samb ak Laye Makhtar Alassane ak Séni di ko ziare bu baax a baax nag di sant mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu fekk ci dëkk bi ñu dalal ñu Serigne Mahmadane Diagne moo naaru Cheikh Moussa Mohamed ñu ngi koy ziare bu baax a baax ak mbokk yëpp sëñ Bac waxoon na sànq ne lii taxawaay bu am solo la ndax jëf ma nga gëne fa mu tumurankee te kenn ku ne xam na taxawaayu Occident ci l'islam kon tey bu nu demee ba fii nga xam ne mooy capitalu euh, économique États-Unis d'Amérique ñu dox fi lu mat ci un kilomètre di tudd yàlla di yëkkati xasida Cheikhuna Ahmadou Khadim di jàng alxuraan loolu du ay caaxaan jàpp naa ne keneen ku ko defoon ku dul seen wi caabi féete la ginnaaw kon loolu li muy wane mooy ab fépp fu mu nekk li mu war a wane mooy li nga xamante ni nii mooy lu ab mu nekk dafa war a nekk référence sëñ bàcc ab murit dañu euh, dama ne ku ñu tànn ñetti yoon waroo dese benn mbelit murit dañ ko tànn ñetti yoon ndax yàlla daf ne euh, wala xadd karab naa bani aadama tànn na ci biir bindee fi doomu aadama yonent bi xayru ummati uxrijat linnaas yonent bi tànn ci biir julli bindee fi jullit yi sëñ tànn ci biir murit yi ci biir jullit yi mu tànn ci murit yi kon nag ab murit fépp fu mu ne war naa doon ab référence ci jëfam ci jikkoom ak ci melokaanam sëñ day wax ne diine du ay du ay symbole la ndax yoon san salam bi ko dafa ne ko way nakaala al xulul azim tu es certes d'une moralité imminente jikko yooyu nag moom la war a bokk taali war a jëmbat nii yëre yu weex nuroo bàcc noonu la xol yi war a noonu la ñu a bokke nday bokk bàyyi l'islam sax loolu la woote aha l'islam waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu kon nii suñu yëre yi nuroo la suñu xol yi a nuroo nu bokk nday bokk bàyyi eh, yéenente jàmm tey dimbalante ndax solidarité loo ko mën di tane nga dimbali ko ci ndax bokk na ci li nga xam ne waral lii ñi ngi war a dem ci waxtaan bi ndax xam nga eh, li nga ko jël kaddu waaye sëriñ to war na ci daal eh, message bi nga xam ne maa koy lancé mooy fii ci New York indi Bamba Day event mooy nañ fexe ba l'islam modèle bi nga xam ne ñu ngi koy wane ci àdduna muy ay bomb ay kamikaze ñu wane ne l'islam jàmm la fraternité la brotherhood la euh, euh, euh, bëggante la bokk ndey bokk bàyyi la waaye du violence ndax sëñ Tuba moom mooy l'apôtre par excellence de la non violence ndax yóbbu nañ ko ay at yu bari waaye bi mu ñëwee def ne fawtu an il ahda yi turan li wa ji je pardonne à mes ennemis je cherche même pas à me défendre bu war a yore mu solo a ma manqué wax mais boo xoolee kilifa yi nga xamante ñoom ñoo fi nekk ñoom yi ñëpp ñu am mm-hmm. la waaw euh, bàcc loolu li ko waral mooy sëñ Tuubaa daf ne képp koo xam ne sama taalu kuy euh, làmmiñam di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bu ko noonu mm-hmm. moo tax euh, bu ñu ñëwee it's friendship it's brotherhood ñëpp dañuy bokk nday bokk baay tijaan xaadir laayeen loolu mooy li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa digle te nag dafa feddile rek li nga xam ne moom la yéen xoolee bu ma xoolee maa ngi ziar ba sëñ Maam Mor di ziar autorités yi nga xam ne fu ne lañ jógee di ziar docteur Khadim Bousso njabootu sëñ Touba gi njabootu l'islam gi dem biñu li ñu bokk mënuñu ko bi benn la penku bi benn la fatiye benn la alxuraan benn la kon nag euh, ay néeg la rek tarixa yi ay néeg la murid bi dafa ne cib néeg xaadir bi ne cib néeg laayen bi ne cib néeg waaye lépp kër gi la kon nag loolu bu ñu jëm ci wax ko nañ koy jëfal di bokk ndey bokk bàyyi ànd te bañ a taxalikoo ndax taxalikoo mooy li xam ne moo ñu neewal doole nekk lu am solo xam naa ci kanam tuuti daañu euh, yegg ci li nga xamante ni moom moo di ci programme bu am am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy def donc euh, comme ni nga ko waxee rek soxna yi tam jàmbale waaye xale yi tam jàmbale rawatina ndawi sëñ Tuubaa yi waaw xam nga soxna yi dañoo am rôle bu primordial ci yoon wi ndax tey jii soxna jaar mooy benn soxna bi nga xam ne am na bis bu ñu koy defal ku tax ñu koy defal Serigne Touba Khadim Rasoul kon tawfiix ji ñu yàlla defal muy Serigne Touba sunu borom mi ngi ko jaarale ci soxna jaara à l'image ah, de soxna ñu ko dalal jàmm mi nga ànd soxna moo xam muy Europe moo xam muy jigéen wax ñu créé ay daayira Maam Jaara ay structure yoo xam ne dañuy bokk nday bokk bàyyi di yëkkatoon teganoo jigéen nag c'est la première école de la vie ci jigéen ñi lañuy yaay dem ci gone yi bàcc mag ñi li ñu fi taxawal lu mu am am solo bu ñu formé wul xale yi ëllëg bañ mën a assurer relève bi dana doy waar kon nag dès à présent la ñu war a xëccoo ak ndaw ñi culture occidentale dès à présent la ñu war a gone inculquer gone yi ay valeur valeuru jom valeuru ngor valeuru teraanga valeuru jàmmoo valeuru bokk ndey bokk baay ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ak jub ndax Sëñ Tuubaa dane yéen ndaw ñi yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil hudaa wa bil bu leen dara ñorlu ak njub ak sàkku xam-xam te dafa indi benn sëñ Tuubaa dafa indi ba tey ci xasida yi liggéey bu am solo wax ne wa axir euh, euh, euh, wajal saxir naa yoo axirul kabir waj alal kabir waxul saxir na ndaw ñi wek mag ñi waaye na mag ñi yërëm mag ñi kon loolu projet boo xamante ni du yem rek Sénégal dañ ko war a appliquer et very everywhere bàcc que sëñ Tuubaa itam mi ngi bu baax a baax a baax loolu tamit beneen jéego waaw loolu xam nga dafa am lu sëñ Maam Mor di faral di wax ay abyaat yu faral di wax day wax ne sëñ dafa bind ci xasida laqad karam na laqad naa daf ne lii suux dawaa man futuhaatin akunu biha busra liman bi daana islam wax daana dafa am lu islam amoon ca Andalusi eh, eh, ca Espagne dem ba ñàkk ko waaye loola tey eh, njaboot sëñ Tuubaa gi ci joxoñu Cheikh Mamadou Moutala dem nañ ca àdduna bi yëpp fi mu ne Italie gi ma jógee am na fukki kër Serigne Touba bàcc ak juróom-ñaar te mooy capitalu christianisme ndax fa la Vatican nekk kër Serigne Touba gi dend ak Vatican bi 30 kilomètres Italie États-Unis du ay nelawukaay sëñ Maam moo day wax ne kër sëñ Tuubaa du fu ñuy nelawee kër gu ñuy defaroo la kër gu ñuy liggéeyal yàlla la waaye kër la goo xam ne nii occasion la pour daa jàllal fa gone yi ñuy jàng seen diine bàcc jàng alxuraan jàng yaru diine ndax waajur bi comme moom mi ngi gujóg ba suwangoon mi ngi liggéey du am temps waaye na fexe ba saa yu ko jotam mayee mu yóbbu xale yi ci kër sëñ Tuubaa yi kër sëñ Tuubaa itam jàngalekat a ne ñu jox leen war ma ja ak ak jafe ne ndax kër sëñ Tuubaa jàkka la sëñ Tuubaa dañ ne nekk muy jàkka kon war ma ju jox jàkka nañ ko jox war may kër Serigne Touba ndax Mbacke Balla lu yàlla la kon daal euh, kër Serigne yi dana gën a yokku ndax sëñ yonent bi Serigne Touba defu dara sof ci lu yonent bi andi woon jaarale ko nag ci doomam ju baax ja muy Cheikh Mouhamadoul Moutada nda wax na lakk mata bi bi sukkarin bari daal yaa waa Cheikh Mousatali bi Moutada sëñ Mbacke Cheikh Mbacke euh, xam naa programme tam léegul xam naa ñu tuuti rek waaw waaye jëm nañ ci bis bu am solo 18 safar tam soreetul ah, ah. euh, loolu tamit am na lu ko jiitu ñaar fukki fan ko tam xalif ma goog mu nekk tam loolu itam ay xeetu ndam waaye gis nga mbir yi léegi ni mu ni mu ni mu yegsee loolu sant yàlla tamit jërëjëf euh, jërëjëf euh, sëñ Bàcc euh, loolu taxawaay bu am solo xam nga ne taxawaay sëñ Alioune Badara Ndim ñu ngi ko ziare baax bu lam Lamfal TV xam nga ne loolu taxawaay bu am solo la ndax xam nga ne isruna muharram isruna muharram mooy ñaar fukki fan ci weeru tamxarit yi nga xam ne ci la Cheikhuna Ahmadul Khadim Khadimul Mustafa dellu ci boromam tabaraka wa taala te daf doon ñaan naan sunu borom nang ma may bi gën ci sama bis yi muy bis yi may dellu ci borom bi tabaaraka taala kon eh, ñaar fukki fan yi tam moom la ñu dëgmal le 6 muy bis bi nga xam ne dañuy sant Cheikh Mouhamadul Moustapha ndax fullaam ak faydaam ak nangoo jaamu yàllaam ak dénk ndégali waajuram moo tax bisu bi nga xam ne mooy xisrul eh, muharram am kon sëñ Modou Moustapha yàlla na ko yàlla fayal ndax yitte ju ma sëkk la ci def bi sëriñ bi delloo ci boromam xam nga ne sëñ Tuubaa ni mu toll ci yàlla bu delloo ci boromam fulla ak fayda ak taxawaay bu mat mooy waral waajtaay wa loolee ca la euh, sëriñ bi taxaw ba euh, def li ko sëriñ Tuubaa digaloon mu yóbbu ko Tuubaa taxat demut loolu moom la ñuy màggal incha allah le 6 ñu ngi ziar baax sëriñ Cheikh sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaynde ma nga xam ne bokk na ci pionnier yi bokk na ci samp bis bi xam ngeen ne sëñ Moustapha waajuram sëriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma bokk na ci nga xam ne ñu njëkk a yaatal xam-xam kon mu ñëw fii ànd ak euh, almujahidu kon taxawaay boo sëñ Modou Moustapha ndax euh, sëñ Modou Moustapha liggéey bi mu liggéey sëñ Touba ba nga xam ne yóbbu na sëñ Touba Touba te xaddamut loolu wax dëgg yàlla wattaay la waaye nag sëñ Touba defal na ko ci loo xamante ni yaakaar na la mu ko waxoon ni ko Moustapha boo ma yóbboo Touba te xaddamut danaa la defal sa kanam lu som di yor mënut a jeexal kon ñu ngi waajal li nga xam ne moom mooy ñaar fukki fan ak euh, euh, ñaar fukki fan ci weeru tam xarit di ziare Serigne Ahmadul Maxtaar mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Moustapha waaye itam di ki nga xam ne muy Serigne Ahmadou njëf sëñ Cheikh Madina mi xam ne mooy jëwriñu Daaru Xudóos waaye tam di ziyaare ki nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy euh, Serigne euh, Moustapha Mbacke Ndiagne sunu Serigne sëñ Khadim Mbacke Mouhamed sëñ sëñ Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne moom mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadul Moustapha te ñaan yàlla mu yàgg di ko ziyaare mbokka mu baax ma soxna Maam Fatim Mbacke Mariamalo waaye di ziyaare Serigne Moustapha sëñ Abdourahmane Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy xalifu Serigne Cheikh Amadou Mbacke taxaw taxawaay bu rafet Cheikh la ko waral moo yitte ja ak fulla ja ak dogu ja nga xam ne waru ko ba suñu borom def euh, wax dëgg yàlla ñu naan màggalu sëñ Cheikh Mbacke te murid yëpp bokk ko noonu la ñuy ziare sunu sëriñ sunu mag sunu xarit sëriñ Moussa Mbacke euh, Mouhamed di ziare sëriñ Dan Diagne naaru borom ni booji mi ko fi teewal waaye itam di ziare sunu sëriñ sunu lépp sunu bun sëñ Mbacke muy sëriñ Xaadim euh, Mbacke moom sëñ Mbacke Mouhamed ci kon mu mel ne kilifa yi ñu ngi agsi sëñ Bac maa ngi gis léegi ndeysaan sëñ Mountakha Bachir de Mouride yabal doomam taawam Serigne Koso mu ñëw eh, eh, wax dëgg yàlla ziar si sëñ bi lii lu am solo la ndax sëñ Mamor liggéey bi muy liggéey mi ngi koy def ci ndigalu ki fi nekk Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha kon lii rek firnde la ndax mbir kat yaakaar naa ne boo ci yebalee sab taaw ñor na la sëñ Mountakha mooy Serigne Touba mooy Serigne Bassirou mooy Soxna Jaara kon yabal na Serigne Koso Mbàkke ñu ngi koy ziare bu baax a waaye eh, xam ngeen ni tamit njabootug Serigne Touba gépp ak njabootu Islam mi ngi fi maa ngi yéen bu euh, Washington moom tamit di jàmbaar Serigne Touba Serigne Xaasim dikk ni ku baax mi ngi ci jotaay bi ndeysaan maa ngi seen Pape président Mika waaye ñu ngi bu baax tam ki nga xam ne muy Serigne Mamor Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Moutada di ñaan suñu borom mbàcc mu yàggal ko tamay ko wér. ak sa jërëjëf suñu Mbàkke soo bàyyi la nga dem dallu ji xam naa kon du ci kanam tuuti bu soobu yàlla bu programme euh, rek su ko defee ñu daal ma ba ma rek jël soxna mooy saam ñu ngi waxaat fa ñuy jullee mooy saam mbokk yi suñu jógee fii ñu ngi dem 207 west 133 fa la ñuy jullee juma xeewlu fa doog a dem nasu suñu gannaaw 5 nasu 207 West 135 33 78 close to 7th Avenue maa ngi lay nuyu ci Bamba Day bi fii ci New York City. waaw salaamaaleykum maa ngi di leen sant bu baax ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Khadim Rasoul di sant Cheikh Amadou Moutala Mbacke xam ne lépp moom la tey bis bi buñ ko amee tey à grâce Cheikh Amadou Moutala Mbacke ñi ngi ñaanal Serigne Mountakha yàlla may ko fan bu dëgg wér di ñaanal Serigne Mamor mi xam ne mooy sunu jëwriñ jiitu liggéey bi koy ñaanal fan bu gudd ak wér tey la bis ci kontaante la bis la boo xam ne tey euh, l'islam amati na ndam parce que tey jullit yëpp fi daje gis nga kii ma dendal nii soxna Saafara la di sama mag sama lépp ñu ngi nii tey amul murit amul tijaan amul lépp ñëpp ci biir lañ ñu ngi ci biir parce que bisu jullit yi la bisu l'islam la ñëpp ko bokk kon daal ñu ngi amaat mbégte bañ yàlla dimbaliwaatee ñu teewaat ko tey ji ñu nekk ci liggéey bi ànd ak soxna yi njiitu soxna Momy Sène ak soxna Fama Dieye sant yàlla bu wér a wér a wér di ñaan Serigne Mamour yàlla bu gudd ak wér ak rakkam yi ak mboolem njaboot Serigne Touba gi ak mboolem jullit yi kontaan nañ torop di leen ñaanal yéen itam ndax ñoo ngi yéen ba booba léegi ndeysaan ak ma jama ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom tam jàmbaar la trop ci liggéey bi ndax ku xam-xam ne euh, Bichri TV yi ku am euh, yaatuwaay la ci liggéey bi ba ñu koy sant bu baax jërëjëf xanaa ma taadaat ay ay kàddu rek ci euh, soxna Saafara ci bis bu am solo bi nga xamante ni moom la ñu nekk euh, di Bamba Day édition 2023 ñoo ngi en direct ci Bichri TV lan ngay wax soxna yi waaye lan ngay wax tam kilifa xamante ni ñoo ngi fii ci bis bu am solo bi. waaw xanaa di leen nuyu leen sant di kontaan bu baax a baax. Mhm. bu ñu nee Bamba Day man dama naan every day is Bamba Day. Mhm. waaw because moom liggéey na ko. Mhm. waaw suñu mag ñi dañoo liggéey l'islam ba nga xam ne tey jii l'islam am na ndam ndax ñoom ndax l'islam islam mi ngi everywhere America Europe ak fépp ndax ñoom ñu baax ni kon ñu ngi sant bu baax ànd ak sama rak soxna su Mbàkke mi nga xam ne ñoo ko bokk ndax sëñ Touba maamu ñëpp la macha allah di sant nag suñu mag sëñ Maamoon Mbàkke ndax bu bis bu yàlla sàkk ni la koy defee depuis suñu papa sëñ Maamoor jóge fi ba tey sëñ sëñ Murtala jóge fi ba tey ne mun na yeggale liggéey bi wone na ko yeggale na ko ba tey jii kon nag ñu ngi ciy sant di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah yàlla ñuy ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla may ñu téye ko déwén yu bari di nuyu ñëpp di sant ñëpp jërëjëf xanaa soxna si ñu nuyu la ziar la ñoo ngi en direct ci Bichri TV bis bu am solo bi nga xamante ni mooy Bamba Day saa dikkee rek nit ñi namm ko waaye gis nañu soxna yi góor ñi jigéen ñëpp sol lu weex loolu tam baax a tey boo ñëwee gis mbooloo mi ñu dajaloo fi ci bis bu am solo bii ñuy defal euh, Seexul Xadim sama nañ ko wax lan mooy yëg-yëg di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke sëñ Bàmba di sant yàlla bu baax a baax a baax ndax bañ ko dalee fekk ba tey mosuñu koo wute foog naa 2000 ba tey benn yoon lañ ko mos a absenté di ñaan yàlla rek sëñ maam moom mii fi nekk. te bàyyiwuñ ko yëf yi mu des ginnaaw ca kanam rek ndax yëfi sëñ Tuubaa moom ca kaw rek la jëm moom ca li jëm. mooy satisfaction wu l'islam ak suñu maam Mbacke ci Bamba Day bi. xanaa kontaan rek ci Bamba Day bi ma yàlla boole tey jii di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di sant sama ñaari waajur di sant Serigne Bamba di sant sëriñ Fallou Mbacke sama wasi wasila kontaan bis bi moom képp kuy murid rek yàlla na la ci yàlla boole bis bi neex na bis bi rëy na bis bi Serigne Bamba rek la suñu xol sedd na yàlla nañ ko yàgg a fekke ci barke Serigne Bamba suñu xol sedd na lool lool lool lool sëriñ Serigne Bamba. bis bii moom képp képp kuy murid rek war nga ko fekk si ndax bisub sëñ Bàmba tubaab yaa ngi dox olof yaa ngi dox képp ku yaakaar Serigne Bamba feeñ nga fii ñun lii suñu suñu sag la suñu xol sedd na ci ñoo ngi sant yàlla bu wér a wér a wér di sant Serigne Fallou Mbacke di ñaan yàlla yàgg koo fekke bis bi neex na riis na rëy na jërëjëf sëñ Mamor Mbacke di sant nag sëñ Mamor mi nga xamante ni moo ko wutu baayam waaw di ak soxna as Mbacke bi nga xamante ni doomu sëñ Mourtala ji nga xamante ni Ndakaaru gée ñu bokk nekk kenn rëcc ko ñëpp la bëgg waaw muy Baye Fallou Serigne Bamba di Baye Fallou baayam muy soxna Ass kontaan nañu suñu xol sedd na. beaucoup maa ngi leen di nuyu man tamit. man la soxna jee Sylla. soxna Dieng mu sëñ maa ngi gërëm ñëpp. di ziare Cheikh Mamour ñoo fi nekkoon nag uh, sëñ Moutala. Mhm. di kontaan ci bis bi. ñun ñëpp suñu ndam la. Mhm. képp ku nekk États-Unis rek suñu ndam la. ñu ngi bëgg di kontaan di recevoir gan yi ñoom ñëpp. Mhm. di ñaan ci barke Cheikhul Khadim lépp lu fi nit sàkku rek yàlla na ko am ci barke Serigne Touba yàlla na yàlla yombal lépp lépp ci barke Cheikhuna Khadim jërëjëf maa ngi maa ngi. moo fi jiite ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sama rakk bu ma bokkal ndey ak baay. sama ma bokkal ndey ak baay. sama mag la sama lépp la papaam ak sama papa ñoo nekkoon ci sëñ Basirou dafa nekk sama mag avant ñu ñëw ci dëkk bi euh, jëfe ko waxe ko yàgg lu weesu bés bi doomam bu jigéen mooy seeg sama caatu yaay bu ma bokkal ndey ak baay soxna moom seen su ma neexoon ni sama kilifa laa du ma mel noonu wax dëgg asalaamaaleykum mbooloo mi waaw man de kontaan rek kontaan ci ñëw gi ma ñëw aousubillahi mina shaytaani rajim waaye ñi ma fi bàyyi woon dañoo liggéey liggéey bu rafet soxna faama ji ak topp ci moom ñëpp dañoo liggéey liggéey bu rafet sama ginnaaw ma ñëw fekk kon sant yàlla la ñuy def di wax ne lii Serigne Touba amati na ndam sëñ Mamour amati na ndam ñëpp amati na ndam sant yàlla bu ñu ngi nuyu ñëpp ak Serigne Touba lii moom mu xamul lii sa a sama xol sedd mënu wax. ñoo ngi euh, jërëjëf suñu moome kon ñuy def rek mooy euh, jéem ànd ak yéen ci podium bi dem ci podium bi ànd ak yéen li nga xamante moom moo di waxtaan bi bu jeexee daañu desuwaat ak yéen ci programme bi incha allah fii ci Bamba Day incha allah muy bisu Bamba Day Cheikh Ahmadou Bamba Cultural Weeks fii ci États-Unis ñoo ngi dalal tam sunu kilifa yi fi jóge Sénégal ànd ak Serigne Mamor moom mi nga xam ni mooy représenté képp kuy murit ci diaspora bi di ambassadeur euh, yoonu murit ci àdduna bi ak délégation yi fi teew ñi nga xam ni saa ne dañuy ànd ak sëñ Mamor ak euh, ñi nga xam ni ñoom la fi ñoo fi taxaw a représenté gouvernement au Sénégal euh, di nuyu euh, consul général El Hadj Amadou Ndaw ak euh, ñi nga xam ne tey ñoo représenté autorité officielle u New York nga xam ni ñoo toog nii muy dinañ leen jox kàddu léegi ñu nuyoo bu ñu paree dañu ñu def tam lu dul tàmbali liggéey bi ñu ngi ñaan ngeen teewlu ñu tàmbali liggéey bi xam naa dañuy ubbee jàng alxuraan ñu woo xale yi fàllu Seck moo ñu war a taril Fallou Seck nag ci kër sëñ Touba gi lay jànge soxna Oulimata Bey moom moo leen di jàngal sëñ Fallou ñëwal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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره فاستعلز فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليحيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم non am na waaw jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf euh, ñu ngi sant tam soxna Oulimata Bey mi nga xam ni moom moo leen di tàggat ci alxuraan al karim waaw euh, ngeen jëf waaw kon ñu doxal euh, ñu jox ñu jox sëñ Mamor mu mu def ñaan bu ko defee ñu ubbi jox ñi ñu war a jox kàddu bu ko defee ñu gaaw a mën a dem mottali li des ci programme bi nangu leen ñaan nangu leen ñaan nangu ñaan allahuma amin kon la ñu jox sëriñ Papa Dramé nga xam ni mooy président MICA wala balaa ñuy dem uh, uh, I would like to welcome you uh, Sister Aisha, Aisata Kamara and Mr. Ed uh, who are the envoys of the office of the mayor of New York City Mr. Eric Adams who couldn't make it today so welcome And uh, uh, we're going to proceed to the program. I'll, I'll come to you in a minute. Uh, kon ma jox kàddu gi sëñ Papa Dramé uh, mu ubbi bu ko defee ñu mën a yeggali mën nañu commencé axousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah mbokku taalibe yi mbokki jullit yi fi teew mbokku américain yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi ci bis bu mag bi ñu fi dajale muy bisu Cheikh Ahmadou Bamba fii ci New York ren ji kon nekk trente-cinquième édition ren kon mooy fanweeri yoon ak juróom bu ñu ameel semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba tàmbali woon ci tàmbali woon góor yàlla Cheikh Mouhamadoul Mourtada Mbacké yàlla na ko yàlla doole ay leer fa mu nekk yàlla dolli ko ngërëm dolli ko yërmande kon nuyoo bi ak sant bi yëpp ñu ngi koy teg ci loxo xalif général des Mourides sëñ Muntaxa ibnu Cheikh Modou Bachir ibnu Xaadimu Rasool di ko tegit ci loxo Cheikh Mamor Mbacke ibnu moo Modou Murtada muy suñ jawriñ fii ci diaspora bi mu jotal ko ci ñépp ñu fi teew di ko tegit ci loxo sëñ Thierno Mbakke sëñ Koso di taawu Cheikh mun Muntaxa Mbakke mu ànd garbaatam jarbaatam sëñ Mbakke di ko teg tamit ci loxo sëñ Moustapha Mbakke Gaynde Fatma teew fii te ànd ak ñun te nekk pionnier ci liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy def bokk ci ñi nga xam ne moo ñoo initié lii ndax bu ñu amee bis bii nga xam ne ñëwug Cheikh Modou Mourtada la yàlla jaarale ko ci moom jamono Cheikh Abdoul Ahad Mbacké historique bi gudd na daanaka du jaar ñuy dellu ci cosaan li yépp waaye ñu bari fii kon xam nañ ko xam ne it loolu yépp fala la tàmbale ba Cheikh Modou Mourtada ñëw kon Manhattan Borough président à l'époque mu nekkoon David Dinkins njëkk a def proclamation yàlla dogal Cheikh Modou Mourtada Mbacké ñaanal ko bi mu fi dellu siwaat ca déwén sa yàlla def muy premier maire noir ci New York bi ki ko ñaaral ci nit ku ñuul mooy Eric Adams nga xam ne mooy maireu New York actuellement waroon teew ci bis bi yàlla dogal mu am empêchement de dernière minute mu yebal ñu ko représenté ñu ñëw fi teew danañ lay jox kàddu kon ci kanam tuuti waaye nag balaa ñuy sori tamit dañuy gërëm ñi nga xam ne it ñoo ànd ak sëriñ bi def délégation at mu jot di ànd ak moom di boroom xam-xam yu mag te yaatal lislaam rek tax leen a jóg waaye tamit nag dañuy gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo sponsorisé euh, bis yi bis yi mag semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba def ci lu rëy ba bis bi taaru nii supporté ci supporté ci lu bari ci sponsor yooyu kon dañ ci jiital Air Sénégal Air Sénégal SA nga xam ne it sponsor principal la ci compagnie aérienne yi nekk fii ki leen jiite di le directeur général Alioune Badara Fall waaye tamit dinañ ci reconnaître soxna Penda mbay mu chef de département vente et pilotage commercial direction commerciale et marketing dañu reconnaître fii tamit waa agence sénégalaise de promotion touristique ASPT ki leen jiite di Pape Mawawa nekk directeur général bi tew fi ànd ak ñun Serigne Khadim Amar chef de département développement offre et prospection monsieur Ali Sidi Mbar Sow directeur marketing madame Fatima Thiawlaay responsable événementiel protocole Mamadou Sarr coordonnateur anglo-saxon pôle anglo-saxon dañ gërëm tamit baax banque islamique du Sénégal mooy seen première participation ci semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba mooy mu nekk participation bu remarquable ñu yónnee ñu yónnee délégation bu mag ci seen kanam Abdoul Aziz Abdoul Wahab Diop sëñ falu Guissé ak Ahmadou Bamba Mbeng def aussi participation significative ci réussite événement bi banque banque de l'habitat du Sénégal tamit nekk sponsor traditionnel dinañ ci gërëm directeur général bi Abdou Aziz Sy euh, directeur général manager bi Abdou Aziz Sy waaye directeur général bi Bokar Sy nekk ba Sénégal Ousmane Diatta ak El Hadj Malick ñu gërëm tamit waa UNO Money Transfer ak Ousmane Dieng Thiaka Money Transfer ak Pape Diankha consulat général du Sénégal tamit ci njiital El Hadj Ndaw ànd ak seen délégation bu mag El Hadj Ndaw ànd ak euh, monsieur Adama Diop ak Cheikhul Khadim Mbacké ak délégation bi yëpp mission du Sénégal yi dinañ gërëm euh, ambassadeur Cheikh Niang nga xam ne lépp lu jëm Nations Unies ci ñoom lay jaar mu boole ñu ak Joseph Ndiaye ñoom it ñu def ñu def ci liggéey bu mucc ayib waa euh, association des sénégalais d'Amérique tamit teew nañ fi ci njiital président Mamadou Dramé ànd ak euh, président Mamadou Mbow ak euh, pap ak Gora Diagne ñoom Ablaye Thiam ak ñi fi teew ñëpp kon office su maire bi tamit indi nañ proclamation waaye ki leen teewal fii kon mooy madame Aïssata kamara ak monsieur Edward Mermelstein ñu gërëm tamit yeneen sponsor yi mel ni Afisini Affinity Health ak Salman Fatouma Sénateur Cordel Clear ñu gërëm tamit Gloria Williams nekk principal school 5 suñu xale yu bari di jàngee foofu ñu gërëm Natasha Trivers nekk CEO ci Democracy Prep Public School bi nga xam ne mu ngi nekk 207 West 133 Street nga xam ne bu jogee ci marche bi ak podium bi foofu la ñuy yendu julli fa juma xewlu fa def fundraising balaa ñuy dem ci balaa ñuy dem Nations Unies kon euh, Natacha moo moo yore école boobu di organiser tamit ay colonie de vacances di yóbbu ay xale Sénégal di leen yóbbu ba Touba amoon yitte lool kon teew fi bëgg ñu présenter ko sëñ bi mu am collaboration ak école Euh, suñu mbokk sénégalais tamit ak South Africain euh, moyena Davis di liggéey ak moom moo facilité relation boobu ñu gërëm tamit Africa Council New York City Africa Council ki leen fi teewal di El Hadj Ndaw El Hadj Ndaw sunu Afrique ak Cheikh Moussa Dramé bati bati buum tamit euh, représenté nañu fii ak ami Traoré bijouterie la solution la solution sponsor yi lañu bokk euh, soxna soxna Mbacké soxna Astou Mbacké teewal leen ñu def aussi une participation liggéey bi Ibrahima Niang jiite ko délégation président Idriss Seck teew nañ fi Pape Diop maire de Thiès teewal leen ak Jacob Coulibaly délégation Khalifa Sall aussi soxna Khady délégation soxna Aïda Mbodj ci ak El Ndaw délégation président Macky Sall tuddoon naa donc consil général ak euh, euh, Pape Mawa Diouf ak ñi mu àndal ñëpp ne chaque année ñu ngi koy def kon ci semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag dañuy jàll fi mu nekk nii ci ñi nga xam ne it ñoom lañ bokkal dëkk bi muy les familles religieuses te ñoom ñëpp ñu teew fi xam ne kat bisu Cheikh Ahmadou Bamba yii lu nga xam ne day honoré l'islam bi yëpp waaye tamit këri diine yi nekk Sénégal yëpp ñëw nañ teew ànd ak ñun ànd ak programme bi dañuy jiital kon ci ñu nag waa kër maam alaaji Malick ci njiital président Talla Ndiaye président Baba Diaw sëñ Daouda Sarr teewal leen ànd ak président Jibi Jibi Diop waa kër cheikh al islam teew nañ fi euh, ràññee nañ ci baax taxawaayu alaaji Omar Karo Niass ak yeneen ñi fi teew ñëpp waa kër cheikh Omar Ndaw ci euh, seen njiit di cheikh tijaan Ndaw waa gaale cheikh Tidiane waa gaale cheikh cheikh Omar waa Ngouraan euh, gërëm bu baax tamit soxna maam Fatou Seck gërëm bu baax nag tamit kër yi kër yi nga xam ne yëpp ñoo composé BICA organisation bi kon bu mën a réussir ba mel ni ñu xam ne kon ñi nekk ci MICA ñoo ci nekk di ci liggéey ay weer mën nañu wax ne semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba daaw bi bu jàllee rek lañu ñu engagé wu danañ ci sant bu baax tamit ñi nga xam ne ñoo yore collecte collecte ak finance di fàttali ñëpp ne ñu ngi yore ay carnet 100 dollars carnet 20 28 dollars yu nga xam ne sëñ Habib Diom ak ñi mu àndal sëñ Modou Fall baay Fall ak ñi ñu àndal ñu ngi topp mbooloo mi liñ ciy joxe mooy rafetal bis bi. waaye tamit war nañu am fundraising tey jii bu ñu jullee jumaa ba noppi war ko amaat suba ci guddi maam jaara danañ ci gërëm bu baax tamit kon laxasaay bi nga xam ne ñooy comité d'organisation bu Mika ci njiital li El Hadj Modou Guèye El Hadj Gora Guèye sëñ Moustapha Diop Balla Niang soxna Far Sam soxna Kiné Samb ak ñoom ñu àndal ñëpp imaam yi tamit ñoom ñëpp lañuy ñuy gërëm imaam Khadim Bousso nekkoon imaam raatit at yu bari fii ci New York yàlla dogal ba occupation bi yu ëpp fu mu nekk féete Sénégal mu jëlal boppam décision ñëw ci sëñ Mamor Mbakke ak man mi xamal ne kat xam na charge Mika moo taxoon mu gën a féete Sénégal waaye tamit comme liggéey bi yàgg na taxawaay bi yàgg lool li muy ab sant ci réew mi bari mu ne kon place imam ratib boobu am e, e, jël na décision kon bàyyee ko imam Aliou Mbacke ila imam Aliou Mbacke tamit ñu gërëm ko sant ko félicité ko bu baax ci taxawaayam mu ànd ko ci ak yeneen imam yi imam Moustapha Diop ak imam sëñ Abdou Samad Mbay ñoom it ñu ngi liggéey liggéey bu am solo njàngum alxuraan mi tamit ci ak soxna ulimata béy xale yi fi doon jàng moo leen di moo leen di taxawu waaye tamit danañ soññee ci jumaa yi Touba New York gi xam ne ñu ngi ci di liggéey nga xam ne digg dëgg liggéey bi yàgg na waaye nag chantier bi moo toll noonu contrat bi ñu am ak contracteur bi deux millions sept cent quatre-vingt-douze dëgg na mbooloo mi ni mu toll fii bu ci ñëpp laxasaay woon dugal ci seen loxo waxatuñu ko konoon benn at du ko wees liggéey bi yegg waaye nag li ci li indi jafe-jafe yu ci bari yu ci bari dañu téye seeni loxo jàpp ne ñeneen ñoo ko war a liggéey waaye dañuy wax ne kat képp ku nga xam ne jàpp nga ne taalibi Cheikhul Khadim nga boo bëgguloo ëllëg mukk lim taalibi Serigne Touba yi di la di tëb war nga moytu bu ñuy laaj lu jëm ci kër Serigne Touba nga téye sa loxo joxe bi di la tëb lépp ku nga xam ne li ñuy liggéey doo ci feeñ ah war ngaa xoolaat sa taxawaay ñii nga xam ne ñoo ko jiite de xam naa lu bari ñu ko dégg waaye ñu xam ne du ñu yendal du ñu fanaanal amuñu benn yitte lu dul jëf ci kër Serigne Touba gi ba jumaa ji ak jàmm ñu jébbal caabi Cheikh Cheikh Cheikh Bakke kon nag ñu ngi gën a tàllalaat loxo ñëpp rek li ñuy sàkku ci bépp taalibe xam nañ ne li ak bépp jullit bu ko mën xam nañ li fi nekk ëpp na 5000 jullit. ak 5000 taalibe dañ ne kenn ku ne rek bu jëloon 500 dollars rek def ko ci jumaa ji ñeenti weer du ko passé ñu jébbale caabi yi kon nag ñu ngi ci soññi jëpp place yi nga xam ne nit mën na fa joxe place yi Alaaji Modou gay ci Ngumbu gay ku fa dem da nga fa fekk carnet ku dem ci Matlabul Fawzayni da nga ci euh, Cheikh Abdoulaye Cissé sëñ Ibrahima Ndiaye da nga fekk ne ku dem ci sëñ Cheikh Fall tamit boroom Touba ak njaareem technologie muy BTD da nga fa fekk carnet ku ñëw ci bureau Mika it da nga fa fekk carnet zel bi 917 717 33 58 loolu mooy zelu Mika bi lu ci nit dugal day dem ci compte Mika bi directement kon daal ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp ñu gën ci farlu gën ci taxaw ba jumaa ji ak jàmm ñu delluwaat ci kër Serigne Touba Gueye tëjee gi nga xam ne tëjee na ko handicapé na communauté bi lool dañu soññi tamit ndawi Serigne Touba yi ak ëhlu jaayante mooy ñu jógee Argentine ak Brésil xam nañ ne mbooloo mu takku lañ ñu fi nekk kenn ku ci ne rek bu defee conscience que ne liggéey bi moom la war kenn ku ne dugal ci loxoom liggéey bi du taxaw mu yegg ak jàmm kon nag ñu ngi ci soññi ñëpp rek nit ñi gën a laxasaayu gën ci taxaw di fàttali fi nga xam ne bu jogee ci podium bii foofu la ñu jëm muy 133 diggante 7 ak 8 building number bi nekk 207 West yi rd Street fa la ñu yendu 5 heures et demi war nañ dem Nations Unies ñi nga xam ne registré woon nañ seen i badge ñëw na bu ñu rapproché woo ci bureau bi wala Mohamed Gueye wala sëñ Mourtala Ndiaye danañ mën a récupérer seeni i badge 5 heures et demi dem dugg Nations Unies ñu gërëm tamit fondation Cheikh Amadou Bamba liggéey bi ñu ko tàmbalee ba léegi ñoo ñun ñoo ko ànd daaw jéeg yónnee nañ délégation def 10 000 dollars ci liggéey bi daaw ñuy ñëwaat taxaw ak délégation bu mag jël cinquante mille dugal ko ci liggéey bi caam teraanga tamit teew fi di jàmbaar lool jël cinquante mille def ko ci liggéey bi loolu kon ñoom ñi nga xam ne ak ñun ñi nga xam ne ñun lañ ci fekk ak mbooloo mika bi ak daara yi fi nekk yépp daayira maam jaara it laxasaayu ren ne guddi maam jaara suba nekk le 29 juillet war a nekk faay fóori Lenox avenue 137 ak Lenox lañ koy defee 8 heures ci guddi ba 4 heures du matin daayira maam jaara ci ajaa ndigalal njiital alaaji ajaa moom i seen ajaa a Dieye ajaa maam Asu Diop ak nekk seen ginnaaw yëpp maami daara mu ngi ba Sénégal waaye saa ne mu ngi soññee moom it di contribuer ñoom kon ñu ngi ciy soññi ñëpp rek suba seen i yéene kon moo yeggali jumaa ji nañu leen uy si en masse def ci lu ñu mën ak lu ñu mënul ba jumaa ji yegg ak jàmm kon daal kàddu yi gudd na waaye ndaw yi daal dañ leen ñu ngi leen di gën a soññ bu baax a baax xam ne kat liggéeyu Cheikhul Khadim la dañu ñu ngi gërëm tamit média bi nag waa ACTV ci njiital sëñ Mbacke njaay sëñ maxtar ak Seydina Ndiaye ñoom ñëpp li ñuy def dañ koy visualiser ma jama ma jama mbay jógee ba den Denver Colorado ñëw teew fi euh, contracteur bi ak bi tamit ci Pape Diédhiou jiite ko ñoom it euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ñu ngi jégalu ci euh, guddal bi waaye comité d'organisation bi yore parade bi ci njiital sëñ Ablaye Thiam podium bi ci sëñ Ali Guèye ak ñi ànd ak yëpp Nations Unies ñoom ñëpp kon ñu get ready incha allah fexe ba semaine culturelle bi am succès bu nga xam ne mosu ko am kon daal euh, dellu encore ngërëm ak sant Cheikh Mamour Mbacké mi fi teew ñëw di suñu njiit euh, te mate ko sëkk liggéey bu am solo bu muy def ci diaspora bi def ko ci wàll ci wàllu éducation yàlla na ko yàlla yàggal lool yàlla dolli ko ci ndam ak ngërëm jërë ngeen jëf ku ñu waroon a tudd tudd ju ko tamit ñu xam ne wax moo dul mat rek ah? te dinaa ko tuddaat ko voilà kon nag jërë ngeen jërëjëf président Pape Sete Dramé euh, jëwrinu Mika euh, kaddu yi am na solo te matale na. xam naa dañuy ñëw ñu jox ki nga xam ni. moo fi teewal maire New York Eric Adams nga xam ni uh, at bu nekk lu ñu baaxoo def la bureau maire bi dafay yónnee ndawam su ko defee ñu ñëw am na lu ñuy wax proclamation mooy maanaam liy firndeel bis bi tey di 28 juillet ci at bu nekk bureau maire bi maire bi ci boppam dafay defar proclamation boobu daldi koy jébbal ndawam mu indil ñu ko fii daal koy teg ci loxo sëñ Mam Moor kon kooku lay ñëw jébbal ko kàddu gi su ko defee li nga xam ni moom lañ ko jox ba mu àggale ko yóbbante bi mu àggale ko ah, Mr. Mr. Edward moom mooy commissioner uh, mayor's office New York mayor's office commissioner of international affairs maanaam lépp lu nga xam ne rek moo jëm ci wàllu uh, jokko ak ñi nekk ci biti uh, Amérique gi muy xeet gu mu mën a doon nag moom mi moom lañ dénk bureau boobu monsieur Edward you have the floor xam naa nag su waxee ba paretam ci lay teganteeg loxo yëkkati li nga xam ni mooy proclamation bi jox ko sëñ Mamor kon ñu teewlu ko you have the floor ak uh, kii tamit mooy soxna ay satu Camara ah kii sunu mbokku guinéen la ay satu Camara la tudd moom it daanaka ndomba tànk bi nga xam ni mooy uh, Edward ba tànk gi mu takk moom la tàkk uh, you have the floor Assalamu alaikum to everyone. Uh, my name is Aisata Kamara, and I am the Deputy Commissioner for International Affairs and representative of Mayor Eric Adams here. Uh, on behalf of the mayor, we want to congratulate you all on another successful Bamba Day. Mayor Eric Adams is committed to the African community. He is committed to the Senegalese community. we want to know that when you're in New York City, this is your home, and we are here to support you. I also want to take this opportunity of the mayor to thank uh, the Consul General, Elijah for everything that he does for the community and for his continued collaboration with us. And to acknowledge Sering Bakke for being here with us. Uh, New York City and Africa, we have a long history, and in this administration, we're going to continue to maintain that. So happy Bemba Day, and now I want to hand it over to my colleague, Commissioner Mermelstein, who will give us the proclamation. Thank you. Aisata, thank you so much. Sarah Mbake. We'll Consul General. Honored guests, it is a great honor for me to read the Mayor's Proclamation. Whereas the acceptance and inclusivity are the bedrock upon which New York City rises, and it is imperative that we continue to champion these values. Today, the Murid Islamic community in America helps fulfill this important vow by organizing this year's Bamba Parade in Harlem. as well as related celebrations throughout the week. Our Senegalese sisters and brothers will continue to water our orchards of opportunity and shine the bright light of prosperity upon our city through cultural and religious events such as this. On the occasion of Bamba Day, I am pleased to recognize Sheikh Amadou Bamba's enduring legacy and commend all those involved for their commitment to uplifting our faith communities and positively impacting our city. Now, therefore, I, Eric Adams, Mayor of the City of New York, do hereby proclaim Friday, July in the City of New York as Bomba Day. Congratulations. waaw jërëjëf uh, thank you so much Mr. Edward and uh, Mrs. Aysata we were so happy to uh, receive that proclamation Sëñ Mamor uh, was very elated to receive that proclamation li ngeen di gis nag ñu jébbal ko Sëñ Mamor léegi comme ni ma ko doon waxe ci sama kàddu jëkk yi loo xam ne la dafa am lu muy màndargaal ndax bis bi tey moo tax lii euh, maire bi yàgg ko def moom la ma leen ko doon wax léegi muy lii li ci nekk nag mooy lii kuñ koy jébbal rek dafa am ay valeur yoo xam ni moom ngay symboliser ci biir communauté bi ba tax na ñii nga xam ni ñooy murit yi fii ñu sofale ci senegale yi tey lii ñu andil lii di proclamation bi ñoom lañ ko jagleel seen taxawaay fii ak seen valeur yi nga xam ni ñu ngi koy wane ci nekkin ak ci seen njàmbaarte ak ci seen nangoo liggéey ak ci jàpp seen njàmbur ba pare gëm seen bopp yooyu yëpp ma tudd ak yeneen ak yeneen damay bañ a guddal moom la tey lii nga xam ni taalibe sëriñ Tuubaa yi moom lañ leen euh, doon euh, mandargaal ci proclamation bi kon ñu ngi leen di sant ñoom ñoomit ñu ngi kontaan lañ ci seen teewaay fii euh, ci kaw loolu it ñu leen di uh, wax ni we would like to uh, sing uh, on behalf of the Sheikh and authorities and all the members of the community. this has always been a great moment for the entire community to receive this proclamation. So, Sheikh Mamor, is sending his great, most grateful and heartfelt thanks to the mayor's office and to you guys who are representing him here today. we can't find the words to describe how we feel every Sheikh Ahmadou Day to receive this proclamation. Thank you so much on behalf of the Sheikh. and all the authorities sitting here on behalf of the president too, Serigne Papa Dramé thank you so much. so kon uh, loolu mooy kàddu cant yi duñu def lu dul xam naa yeggali programme bi am nañu nag tey xam ngeen ni dañu doon wut bu ñu jógee fii fu ñu dem man fa xéewloo noppalu fa tuuti julli fa àjjuma pour mën a continuer li eh, eggali li des ci programme bi waaye yàlla dafa def. Euh, dafa naqari woon am barab dañoo naqari woon dafa barab dafa jafe woon pour ñu am ko am nañu nag yàlla def mu am soxna su baax bu nekk fii bu yor ab école ah moom moo ñu abal école boobu fa la ñu war a dem bu ñu jógee fii fa la ñu war a dem noppaloo fa xewloo fa daal di fay julli àjjuma soxna soosu nag moo nekk nii ak ñi nga xam ni ñoom la àndaloon di waxtaan ak ñun ba tey nii ñu mën a bu ñu jógee fii foofu la ñuy dem ci école bi nga xam ni mi ngi nekk 133 euh, ak 7 avenue kooku mooy soxna soxna Natacha that's you Trivers ok yàlla dafa def ki nga xam ni moom mooy Natacha nga xam ni moom mooy directrice su école bi CEO uh, école bi mi ngi tudd Democracy Prep Public Schools mi ngi nekk fii nii uh, mujj la mujj ñëw waaye kii di uh, Moina Davis moo nekk nii ak kii di Chrissy Brown ñoo ko teewal fii ñoom lañ bëgg a jox rek ñu am ñaari kàddu yu ñu sànni. My name is Maimuna Davids, and I'm here with Christy Brown from Democracy Prep, who is the uh, Senior Director of Enrollment and Family Engagement. We just want to say we are honored to be here uh, and to join uh, the Sheikh here um, at Bamba Day. And uh, we look forward to working more closely together with the community. Christy? Hi, my name is Christy Brown. I'm the Senior Director of Enrollment at Democracy Prep Public Schools. I'm honored to be here today. Congratulations on your proclamation. Thank you so much for having me participate in your special Bomba Day. I'm especially excited to speak to you today because Democracy Prep Public Schools has a special connection to Senegal and Tuba. I'm excited to share that with you in a moment. Um, As I mentioned before, one of the things that makes our school special is the international travel that our high school scholars experience. One of the places that our Bronx High School students travel to is Senegal. This is an incredible trip, and since many of our students are Muslim and of West African heritage, it holds a special place and meaning for them. One of the many places they visit is the holy city of Tuba and its great mosque. it's always such a wonderful experience to see the meaning this has for our students. On that, note, let me say it has been such an honor speaking you today. I believe the Democracy Prep community is a wonderful home for your children and their education. We welcome your children and your community into our schools with open arms. Thank you. because he's not here to thank you himself. Thank you, Senegal. Thank you, Africa. And know that Yusuf Salam is with you and you are with him every step of the way. Thank you so much. Thank you. We'll see you in a minute. Yes. All right, thank you. ah jërëjëf kii mooy yaayu Youssouf Salam conseiller municipal bu bees bu New York ah, moo doon yëkkati kàddu nuyoo ni ñëwoon nuyu sëñ bi kon du ñu def lu dul ñaar ñi ngeen ñaari soxna yi taxaw kii doomu Balloji la Balloji ngeen xamoon ko yéen ñëpp ak taxawaayam ci communauté bi doon taalibe sëñ bi ñoom ñi ak doomam muy Nourisha Haave Balloji muy doomam bu jigéen ñu ngi jóge ba Florida ak ànd ak doomam ah, sëtu Balloji bi di Alicia Haave right Aliciana Aliciana, right? Uh, uh, ñoom uh, Florida lañ jóge tey teewal fii lii nga xam ni moom mooy héritage u Ballozi yi Ballozi nag jarul ñu koy présenté xëy na am na ñoo xam ni xëy na mosuñu dégg turam waaye bis bii tey ñuy célébrer lépp ci loxoom la jaar